Sall vraiment liggéeyul kon dafa wara dem mais lool rek lool rek kii la lool rek kii la plan la programme la Macky Sall loolu war comprendre ñun topp ñu Sonko parce que Sonko dafa moo moo fi gën dañoo topp Sonko parce que dañoo gis ne Macky Sall fi mu ñu jëmee baaxul 750 milliards ci terre terre ba dem terre xale yi liggéeyuñu di dee ci géej courant di coupé ndox di coupé facture yi cher. internet amul yu Ndour di ñu wax naan Sénégal dafa technologie bi dafa baax technologie Sénégal le Sénégal n'a rien à envier yeneen pays lu tax parce que keroog ba muy def euh, euh, fii tey ba muy def fii tey TFM dafa wane kii benn écran ñu wane ay télé yu kii yu bëri ay kër yu bëri en même temps ñuy seetaan fii tey ci loolu rek Youssou Ndour ne Sénégal amuñu dara lu ñuy envoyé technologie am nañ ko kay ndax bu ñu toogee classe yi amul ordinateur Internet, ce n'est pas accessible à toutes les maisons. Nous sommes en retard technologiquement. Nous avons un laboratoire euh, euh, électronique, nous avons dara. téléphone, nous avons des comptes. Nous avons un téléphone, nous avons un téléphone, nous avons Internet. Mais man, Sénégal, là, nous avons c'est cher crédit c'est cher promotion une promotion promotion qui C'est euh, affaire bi lolu da ngeen di perdre sen temps parce que Sonko réussir na ba paré tal na xel yi ba paré projet bi moy li la Sonko bëggoon li la bëggoon dafa bëggoon rek opposition bi ñëw nek ben Macky Sall lan mo doon projet je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression Sonko est parvenu il y a 3 jours 4 jours à faire une coalition de l'opposition li Macky Sall defoon Sonko yakat nako parce que Macky mom ben projet la amone je vais réduire l'opposition en miettes opposition bi dama len di tasaare dama len di wasaare dama len di def ay sankalé mais gis ngeen Sonko fimu tok toog la toog nit ñi di ñew ñan ñoo ñëk ñew sénégalais ñoo ñëk genn ñan ñoo ñëk ñew kan mo ñëw mam jaara faam gis nañ ko fa gis nañ fa Barthélemy Dias gis nañ fa Khalifa Sall yaanaa mars sen bop ñi xam dañu demone ba décourager ñu gis leen ñoo lank ne dañuy dem ñu ne leen policier ne leen ñoo lank doo leen dugg mais mujj na leen bàyyi ñu dugg mënu Bousso di defar ay vidéo opposition bi Bougane guerrier bàyyi télé télém télém rek moo bàyyi affaire yi jaar en direct TFM wanewul télévision El Hadj Diaye wanewul 2S mais Sonko a réussi il a réussi man maa ngi nii sama live yëpp Sonko laa ko def ñi naan ma doo njaago Sonko doo def lii doo def laa ku nekk li nga mën ngay def si vous yaakaar ne day bokk rek parce que am na que ne Pastef sax réfléchir parce Les militants yi dañoo les militants de première heure que ne juddu ci la ñu Dieu réfléchir Sonko patriotes lañu pour joxe suñu pour Sonko bien ndax Sonko. fen na ci 94 milliards wala Sonko tëdd na xale wala wala violé na viol sax amul xëy na bu doon viol sax dina garaaw na ma rey attitude